mbokki jullit yi ñu leen di nuyu li leen ziyaare ci bés bu tedd bii ñi topp ma kenn àq ma ko doon toppee baal àq ñëpp di ñaani ñëpp ñu bokk balante àq kon kàddu yi moom jëlul guddal nanu góorgóorlu bu baax rek ci njub njub mooy buntu lépp lu baax ñu gën a góorgóorlu bu baax waxuma sax nu am diine waxuma it nu bëgg diine waaye li mu wax mooy nu gën a fonk suñ gën a fonk sunu taalibe jikko yu baax yu tedd yépp ñu makaarimul axlaaq ngi ci biiru bi du góor góorlu ci ñetti jéego yooyu rek lu nu gën a suubu ci yow yoon di gën a xam sëriñ bi di gën a mën a dund sëriñ bi ndax sëriñ bi moom boolewul ak dara boroomam ak yonent bi mu ko tegtal euh, jërul ñu du ko guddal mën nañ ko yemale foofu rek di sant ñépp nag ci liñ ci weesu ci doxin wu rafet bi nga xam ne mi sëriñ bi ak tawfiqam mu nu gasandu ban mën a jéggi li nu weesu jéggin wu gën a rafet noo ngi koy noo ngi sant suñ borom bu baax mi nu boole sëriñ bi di sant sëriñ bi bu baax mi suñu lépp tey ëllëg di suñu biir du suñ bitti kon jërëjëf jërëjëf di ñaan bu baax a baax suñu borom gën noo gàtt ndox fii sëriñ Touba nawet bi jiitu ci lañ ci lépp di ko ci séentu suñu borom gàttal nu ci ak tawfeex bi ñu amee ko nan ko bëggee wala lu gën a sax kawe suñu njort loolu lépp nag cant gi moom jiitu na te kanam rekk la jëm lu nu mën a bëgg ak lu nu wax mën a xalaat cant gi moom jiitu na ba noppi la ca des yaakaar rekk la ak rafet njort te loolu yaakaar ji mat da sëkk rafet njort gi amul fenn fu mu yem jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf nga xam ne ko toog fa nga toog ba suñ bi ba dem ngeen dooru yëg ci bu kenn yuuxoo nag ne ñëpp ne tekk rek ba mu ba dem